mbokk jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média ca fajar ba tey ñu leen di euh, gunge 9h33 euh, mooy dog jot ñu njëkkee ak li nga xam ni dañ cee tollu nawet bi nawet nag bu amee ñaare daf ciy bëri ay gox yoo xamante ni bu tawee rek yoon yi du baax kër yi itam dañuy am ay jafe-jafe mm-hmm. loolu la ñuy bëgg a waxtaanee ni àjjuma bu jot bu ñu duggee ci pàcc bi ñuy jagleel lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ak Dieynaba na Ba. sey du baax Euh, jërëjëf euh, Pape Cheikh euh, comme ni ñu ko waxee woon sànq ci bopp yeewu leen. Mhm. Ah, noonu laa koy waxee waxoon naa leen sànq ne dañoo fas yéene daal di waxtaanee lu jëm ci wàllum dëkkuwaay. Mhm. ci weer ci jamono ju ñu nekk muy jamono nawet. Mhm. parce que xam ngeen ne am na yenn kër yoo xamante ni bu xësee rek ba commencé xiin. dañuy rek daal di takk seen ndigg ngir tàmbali génne ndox yi nga xamante ni dañoo nar kon fees ci biir kër yi. bokk na ca waa Wakhinane. Wakhinane nag euh, mos nañ fa dem reportage ak ndimbalu Salif mi nga xamante ni moom mooy correspondant au groupe Média euh, ci banlieue wu Ndakaaru jour boobu nag lu ñu gis daf ñoo yem lool la ñu gis moom mooy ay koñ yi nga xamante ni dafa fees dell ak ay ndox mhm. euh, ay koñ yi nga xamante ni dañoo ubbi foos yi muy ball fu nekk ak ay kër yi nga xamante dañ leen rek daal di abandonné ndaxte accessibilité bi mënatu fa nekk ndaxte kër yi dafa fees del del del ak ndox mhm. lu weesu ndoxu taw bi nekk na ay dëkkuwaay yi nga xamante ni foofu dafa tooy maanaam nab bi dafa jege tax euh, kon euh, ba lu fa euh, dolleeku tuuti ci ndox rek mbir mi dafay feeñ mhm. ndaxte wax ki naan sax yaakaar naa professeur bu ñu koy rek daal di wax mooy loo xamante ni boo waxee tuuti rek di nga gis ndox mi bal bi mhm. bal ba nga mën koo jëriñoo kon dañuy xool élément bi ñëwaat depuis 2005 laa dëkk ci kër gi depuis avant 2005 99 laa tuxu si fii ci kër gi ba ma fi ba léegi nag 99 amutoon ndox booba temps bi ni jënd fii dafa wowoon koŋ amutoon benn problème jamonoy maral la woon jamono boobu mais bi ñu demee ba cinq ba mbënd mi dikk ci lan ñu commencé am problème mu ndox mi mais ñun li ñu yokk jox ndox mi bassin yi la bassin wax nañ nim saat bi bi ñu ko gasee bassin bi ci boppam moom moom lañ def benn tuyau regard bi moo viré mooy jaar ni ci sama buntu kër mooy versi ndox mi ci lag bi léegi nag euh, lag bii muy versi lag bi da koy delloo ci biir yi léegi nag muy ball ci biir kër yi boo xoolee mbedd mi mbedd mi dafa wow ko mbedd mi amul ndox boo xoolee ci mbedd mi rek da ngay trompé wu parce que mbedd mi taawul ndax bassin bi defal nañ ko fee benn chaaru canal mu di ci ndox yi nekk ci mbedd mi yëpp ci la ñuy wàcc di dem mais boo duggee ci biir kër yi fi ngay fekk ndox ndax foos yi ci la lag bi di retourné waat ndox mi muy génn ci foos yi gis nga sama foos bi dama ko yëkkati deux briques boo ko ubbee dafa fees del dama ko tëj ne ndax damay bañ sama xar mi naan ci moo tax ma tëj ko ne gis nga ndox mi fi muy génne gis nga ko day wal di génn bu bët kër gi day fees dell ñun ñi ñëpp muy sama kër kër gi kër gi ci toog ranse bi yëpp dañuy fees dell dañuy tànq di tuur ci mbedd mi ndox mi day ball day ball kon du ndoxu taw bi waaye du ndoxu taw bi de ndoxu dex bi la ak euh, nab bi nab bi fii nab bi dafa fees parce que ñun suñu fos yi amuñu 2 mètres 1 mètre lan am fos yaatuwaay lan am lëngër euh, lan am yaatuwaay lan am mais amuñu lëngër ci suuf un mètre ku kër bu ci nekk un mètre nga am ah man boog sama kër. Mm-hmm. parce que boo gasee da ngay gis ndox. kon yéen xanaa avant ngeen jënd gëstu woon ndax fii gox bu doon taal parce que xam nga booba lu dul am kër goo mën a dëkk ak sa njaboot rek. loolu rek ngay gis mais bu nu waroon ne fii bu nu fi dugalee sunu xaalis nii lay mel du nu ko jënd. Mm-hmm. mais booba temps nag waaw na vraiment amul benn problème suuf bi rafet da ngay bale di lay xam nga kon doo am benn problème mais bi ñu ñëwee ba ci biir nag ba 2005 daal lan am jafe-jafe ba léegi. Euh, mu ngoog waxi lañu la ñu euh, noonu ak euh, Dieynaba Seydou Ba ak suñu correspondant yi loole mooy firnde rek ni bëri na ci ay dëkkuwaay yoo xamante ni yàkkamtiwuñu benn yoon nawet jot. yàkkamtiwuñu nawet jot waaye dëkkuwaay bi itamit il faut ñu wax ci Pape parce que mm-hmm. gis nga temps bi ñuy def reportage bi dafa fekkoon ne dañoo dafa tawoon ba noppi ñu dem fa gis ngeen kon taw bi nu mu rek daal di def kër yi mais laata sax kon taw mi daal di yegg si gis ngeen briques yi ni nga xamante ni mu rek. rek daal di tooyee loolu nag di firndeel ni uh, ñoom fa ñu rek uh, daal di dëkk fa ñu daal di tabax nekkul li nga xamante ni uh, lu jaadu la ndaxte xam ngeen ne nag fii ci ndakaaru dafa am ay dëkk yi nga xamante ni am ay gox yi nga xamante ni goxu ndox la mm-hmm. léegi ndax war warees nañ faa tabax loolu nag moom mooy kon question bi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi koy rek daal di amal ndaxte xam nga ne balaa ngay tabax dafa am yu bëri yi nga xamante ni nga ko war a daal def te sénégalais yi ñu ci gën a bari duñ ko def mm-hmm. mooy lu jëm nag ci wàllum étude de sol mm-hmm. nga dem nga xool saytu suuf si ban façon suuf la mhm. ndax war nañ faa tabax ndax war nañ faa dëkk mhm. ndax itamit ban façon tabaxin lañ ko war a rek euh, daal di def te loolee nag ñu ci gën a bari euh, muy euh, tàmbale ci man duñ ko rek daal di def mhm. moom ak ay étude architecturale duñ ko daal di def si suñu tabaxin yi loolu nag yaakaar naa moom moo indi jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ñu ngi koy rek daal di nemmeeku ci jamono ci jamono nawet même au delà de naan gis nañ aussi ay gox yu bëri fii ci Ndakaaru dañoo nekk ay zone d'inondation ndax nga xamante ni yoonu ndox la loolu nag incha allah xam naa ci yeneen jëmmi jamono danañu rek daal di indi ay spécialiste ñu faram fàcceel ñu ko mais li taxoon ñu indi ko mooy wan rek jafe-jafe yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy am ci dëkkuwaay yi gannaaw bu ndakaaru tawee ba sëwët voilà te dafa war a jaral nit ñi sax Euh, mhm. ndax xaalis bu bëri nga jël ko jëndee ko suuf mhm. euh, ba noppi mu euh, yàqu nga mhm. mel ni man ne duma dem seeti ñii liggéey ci naka la ñuy suuf si ndax mën nañ cee tabax tabaxaabul na ou pas dem seeti architecte yooyu yëpp yoon na te yoon itam dañ ko war di respecter ndax suñu intérêt la waaw wax nga dëgg pa waaye ñun dañoo xam nga Sénégal ñun dañoo xaw a doy waar <laughs> ñun dañuy jël xaalis jëndee ko dara fàtte ne xaalis la. dëgg la maanaam Sénégal ngay gis mu jënd oto quarante millions. bàyyi ko mu fanaan fu am poussière te du ko man toujours bu ma ko rombee dama naan kii est-ce que 40 millions yi doon na ko bàyyi noonu rek mu fanaan fi <laughs> bitti te te te muuru ko mm-hmm. léegi nga jël sa kër kër gi presque 30 10 million quinze millions mm-hmm. waaw 15 millions yooyu boo ko yoroon nga fekk foo xam ne dana la fii bu tawee mm-hmm. ndox mi da koy yóbbu ndax da nga fa teg 15 millions yi doo ko fa teg de léegi lu tax nga teg fa njëg lu jar 15 millions loo xam ne sa bakkan dafa nekk ci biir xam nañ bu baax ne am na fu bëri foo xam ne diggante euh, crash pétrolier 73 bi c'est ça sécheresse 74 75 76 bi tooyal euh, wowaloon na dex yi mhm. mais bu tawee mu indoon na benn yoon mu mhm. taw mu indoon na ñaari yoon ñu ne la jógal ñu yóbbu la fële bul xalaat sa bopp yow xalaatal sa njaboot ëllëg mhm. ndax nag dëkk foo xam ne at mu jot bu xiinee ngay moolu yàlla ndax mhm. nag yenn saa yi dafay métti métti goo xam ne bu mhm. tawee danga nga naan su booxun mais su booxun kan borom taw bi mhm. te boobu saytaane mi ngi lay dugal ci bàkkaar su booxul ma taw bi waaw su booxul ma taw bi su booxul ma taw bi su booxul ma yàlla la bu xiinee nga mere yàlla wala nga suul xorom waaw loolu yëpp nga ngay def noonu man pour man tey jii ñetti responsabilité moo am responsabilité bu njëkk bi état bi la mi bàyyi ñooñu dëkk fa ci jamono booba te kenn waxu leen bu leen fi dëkk bàyyi leen ñu tabax ay étage bàyyi leen te booba mairie yi ñi ngi leen di xool préfecture yi ñi ngi leen di xool gouverneur yi ngi leen di xool première responsabilité mm-hmm. mm-hmm. mais deuxième responsabilité bi la ci dem nag ba dëkk fa ñu ne ko fii baaxut kaa ñu yóbbu la feneen mm-hmm. mu ne moom du fa jóg kooku lu ko dal moo ko teg boppam troisième responsabilité bi mooy nag ñi nga xam ne ñoom lañu dénk ñu wax ak boppu nit ñi ñuy xool poos nit ñi maanaam maanaam ki nga xam ne. Mhm. lañ jox responsabilité ne ko na nga waar nit ñi. Mhm. mooy ñi ki ki leen di euh, jël ajjuma ki ñu jox ki ki yor tarixa bi te ñu dénk ko seen nafsu. Mhm. ak ki nga xam ne mi ngi ci église bi ñu jox ko dimanche bu ñu ñëwee église nañ leen wax dëgg vendredi nañ leen wax dëgg bu ñu tasee ci gàmm yi nañuy waxante dëgg. te bàyyi diw baax na diw baax na nit ñi daanu di mbëkkante poto baax na mais nanu wax nit ñi que première chose mooy kër rëy na ci ñun rëy goo xam ne mm-hmm. Mm-hmm. waruñu ko jënd foo xam ne ëllëg daf ñuy daf bu nu dabee nag ci natt boo xam ne yàllaa ko teg responsabilité état bi mooy mu reloger nit ñi mm-hmm. nit ñi bu ñu leen di reloger tamit pap parce que dama koo gis Kër Massar ñu nu yëkkati ñu bañ ne duñ fi jógee mais loolu xaw na xew na tamit wax ci naan donc que ne ñoom am nañ seen raison mais daal li ma bëgg nit ñi gën ko xam mooy

habitation mais aspect sanitaire bi. parce que boo gisee euh, kon euh, kër yi nu ñu mel boo gisee environnement bi nu mu mel loolu doo ñaan yow sa njaboot. di di di di màggee ci loolu. Mm. parce que fu ay yeew nekk parce que am na ci reportage kenn ku ñu wax ne que ba. waaw euh, voilà mm. jaan am na kenn ku ñu wax ne que gis rey nañ fa yeew lu lu yàggul yooyu yooyu bari fa ay yooyu yu mag bari fa mm. xale yi nga gis leen ñuy foo ak suuf si. Mm-hmm. di foo ak ndox mi. loolu voilà foo si foo si ak ndox mi donc au delà. xale yi dañuy lab ci conduire yi. si si conduire yi c'est ça mm-hmm. c'est donc au-delà de l'aspect sax euh, tabaxin ak mm-hmm. aspect dëkkuwaay. Mm-hmm. aspect santé la ak sécurité. donc euh, kon bu ñuy tabax nañu bàyyi xel bu baax a baax ci fi ñuy dëkk. bu ñuy tabax nañu bàyyi bu baax a baax xel ci environnement. parce que dafa am solo ci ci dundinu askan wi. moo tax wayu Cheikh Lo bor nañ di ko déglu lu xew lu xew ñu ni ndogal yenn yi daal du ndogal. Ah. ñun nag dañoo topp gëm-gëm ba foog ni lépp ndogal la am yoo xamante ni tayee. <laughs> ni daf ko jàng mhm. architecte bi mhm. ñu indi ko mu ne fii baax na mhm. parce que dañ ko jox xaalis wala dara mu ne baax na kooku ki ki fa du fëtëb ki nga xamante ni dañ ko jaay également terrain bi mu ñëw moom tamit xam ni foofu baaxul ñu jaay ko ko xam nga loolu yépp lu ñuy waxtaane la mais la plupart des personnes bu ñuy tabax duñu ñu wut architecte te duñu wut euh, ay ay ay maison ay maison d'étude bu ñuy dëkk sax léegi est-ce que xam nañ luy see Mm. luy. serek moom mooy serek. yow xam nga ndax mooy sa doole. waaw jéem a bañ mooy sa doole bi ñu toog nii rek. c'est ça ñun ñii ñëpp ku nekk bëgg nga kër war ngaa tabax kër wala yaa ngi. war nga dem serek dëgg la serek moom mooy centre bi nga xam ne dañ ko fi teg uniquement pour bala ngay tabax fu suuf ne ci Sénégal. te ko. waaw xam nañ mm-hmm. fu fu war a am ñaari étage mm-hmm. parcelle gi da nga fiy gis fu def sept étages. sept étages day am alors que dañ lay tere. nga mm-hmm. dépasser sept benn sept benn niveau bi en fonction des zones. gis nga pap pap mën nga am cent cinquante mètres carrés. ci benn ci benn koñ. ñu mën fa tabax étage yu ñett. ñetti niveau. cent cinquante yi mu lool kenn waru faa tabax lu ëpp rez-de-chaussée. ci code urbanisme la nekk. Euh, mais loolu c'est bon à la nekk yoo xamante ni euh, par exemple damay jël benn exemple boo demee par exemple Maroc mhm. am na ay dëkk yu nga xamante ni dafa am code couleur mhm. ah am na ay dëkk yi nga xamante ni dafa am code de euh, voilà waroo dépasser mhm. tant d'étage même fii nii am na ko mais les gens duñ ko respecté te li mu wax ni serek lu mel ni serek ak ci mel ni wàlla ba sol dañ leen war di dem di leen pour ñu xoolal leen suuf si pour ñu xoolal leen suuf si ñaata étage la attan suuf si ban façon ciment moo ci war a dem ban façon tabaxin lañ ko war a tabax Mm-hmm. mais malheureusement euh, mais professeur mais je pense que il faut vers la population dem ci télé yi di communiquer aussi wala def ay euh, publicité yoo xamante ne ça va permettre aux gens ñi nga xamante ne xamuñu que yéen fi seen communication manqué na bu baax sax parce que mos nañ def mm-hmm. émission ak CEREC man ci mm-hmm. période boobu laa ko laa ko laa ko xam waa CEREC ak waa DESCOS ñi nga xamante ni ñoom ñooy genre policier de l'habitat euh, c'est vrai que seen communication des na lool lool lool mais euh, di leen wax rek ne ubbi nañ ko pour ñoom parce que émission sama kër loolu lañ ko fi tegee euh, euh, rubrique bi ñuy def euh, ci ci yeewu leen jëmee ko ci wàllum dëkkuwaay kon tegal nañ leen fi pour ñu communiquer mm-hmm. def ay spot pour aussi waxtaan ak askan wi mm-hmm. loolu tamit seen seen il faut ñu def ko affaire kër lu ci gën a bëri bu ñu génnee moom li muy waxtaane jay na ba ci mm-hmm. émission dañuy gis ne ñi ciy wax sax déjà bëri bara buñ ciy wax aussi duñu xuus également vers ci fi nga xamante ne fa la solo si nekk xam nga loolu tamit day day am solo taw ñu ci gën a bëri bala ñu ciy wax taw bi ñëw ba problème problème am ñu ñu doog ci commencé wax mm-hmm. donc déjà loolu mooy bàyyi ba jaan bi matt voilà topp ci watit wa rek voilà fekk jaan bi jaan na bu donc sama kër a ngi fi waaw <laughs> waaw li ñu li ñu li ñu mooy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ci métit ci mm-hmm. ndox mi mm-hmm. euh, ndax wolof daf ne ki ne ci naqar kenn du ko yedd dañ koy yërëm waaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ñu génn ci euh, ñu xoolaat tamit bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy dëkk yi maire yi ñu xool fan la plateau yi nekk ak fan la vallée yi nekk waaw ba bu ñuy joxee kër yi ñu xam ñan lañu war a dëkkal fii ak ñan lañu war a bañ a dëkkal fii mhm. mais yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm te ñu xam na nag lu inondation métti métti taw a ko gën waaw mhm. mhm. ah, naqaru naqaru naqaru naqaru naqaru inondation lu métti métti taw ko gën naqaru sécheresse a ko yées wallaahi ndax ñun dañoo dëkkoon sécheresse bi tawut euh, ñuy largué dund gi ci ay ay hélicoptère ak avion soixante quatorze soixante quinze soixante seize ñuy wàccee ràkkal nit ñi di ko xëccoo ak jur gi nga war a ngénte sa doom amul loo ko ngénte nga jël mbiskit di ko séddale wala nga jël potte di ko joxe tabaski jot nga am wu ko kenn sóoraale ko da dem ko daan jaay gétt lan mu jaayee ko dix mille francs wala vingt mm-hmm, mm-hmm, pense mm-hmm. que ne yàlla nañu yàlla musal ci ndox manqué te fi léegi nag ñun nit ñi nan nite ñun nit ñi état bi na jël responsabilité sanctionné ñi ñu war a sanctionné mais aussi baax na lool ministre bu jafe jafe amee Euh, jógu nemmeeku bi. Mhm. léegi nañ ko remplacer par jógu fàggandiku. Mhm. Mhm. waaw jógu fàggandiku à partir du mois de mars. ñu dem xool lépp teel ci jog incha allahu rabbi. voilà mu ngoog donc loolu moo jëm ci euh, dëkkuwaay ak jay euh, na Ba seydu ñu ngi la ci gërëm bu baax.